ak ki nga xam ne naka jekk ci këri ceddoog yooyu la nekk ñëpp ci yem ku mu noppi ci moom ba ba ba noppi ci ba noppi ci moom doo leen doo suñ ràññee jëfee nga ne boroom xam-xam la aalimu kulli fan la suñu waxee itam noonu moo tax suñ mu saaka ne sëriñ bi waa ju ko mosoon mu mos la koo mën a tee mosi du tax mu saf la loolu euh, mën nañ koo tënk ci sëriñ bi euh, li mu fi indi muy ab yar ak itam ban xeetu yar la muy tarbiya la himma ak fan la ko jaaree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 Euh, gis nañ ni sëriñ bi la wala bokk li ëpp ci ci murid yi ñiñ jàppee ne ñoo tër yow mooy ña nekkoon ca daara ja daan benn daan nañ laxasaay wala ñoom ña daan nekkoon ci daara ja di fa nekk bëccëg ak guddi lañ jàpp nañu te mel na ni am na ñeneen ñoo xam ne tërbiyewu nañ te nekkuñu woon ci daara ja wala boog ña dañoo nekkoon ci kër gi waaye nekkuñu woon ci daara ja foofu itam ma def fi ab leeral dana ci am solo lool ngir mën a yee ñi eh, ñi nga xam ne ñooy dégg